voilà Kouzida merci beaucoup may jaajëfalaat nag mbokk internet yi toog di ñëw seetaan ñi safoo l'évidence TV ñu door la revue des titres nag ak journal l'évidence mi xëyee tey 73 partis et mouvements rejoignent sa rejoignent sa sa coalition une dernière ligne droite rythmée pour xalifa Sall mu mel ni nag jamono ji nag ñi ñi ngi gis ni ñii di politiciens yi ñii ñi ngi ànd ak ñi ñële di ànd ak ñële lépp rek ku ci nekk bëgg a say chance maanaam yokk say chance ngir gagné li nga xam ne moom mooy élection présidentielle ñu daal di jàll ci direct news mairie présidentielle euh, a Gaye esquisse cinq bonnes raison euh, pour voter Amadou Ba euh, mu mel ni nag ki nga xam ni moom mooy door a Gaye di homme d'affaires fii ci Sénégal nekk itam politicien mi ngi nag wax ni ki nga kii di Amadou Ba moom mooy meilleur choix pour Sénégal L'As Quotidien moom nag ñëw ci présidentielle 2024 2024 Macky appelle à voter euh, dans le calme mel nag kii di président Macky Sall mi ngi woo ñii di ñu daal di dem voter ji ci jàmm ak benn yëngu-yëngu bañ ci am ci li nga xam ne nag moom mooy euh, scrutin bi nar a am nag le 24 mars bi ñu jëm di dimanche euh, bi ñu jëm réew mi quotidien ba tey ci président Macky Sall la fësal xëtam bu njëkk wax ni Macky confirme son départ le 2 avril plus que 12 jours au pouvoir mu mel ni nag jamono ji li kii ni Macky Sall séjour euh, sans compter fi nga xam ne moom mooy ci bopp réewu euh, Sénégal plus que 12 jours maanaam euh, fukki fan ak ñaar képp ñoo ko desee ci bopp réewu Sénégal mu mel ni nag kii di Macky dafay dem bu le 2 avril jote Sud Quotidien moom nag ci report de la présidentielle manifestation consécutive et consécutive et victime Macky Sall mu mel ni nag kii di président Macky Sall daal dinay àddu jëmale ci loolu moom nag jàpp na ni taqewul benn yoon ci mbir yooyu le xewoon fii di ay manifestation ak yu ñu mel diggante 2021 ak 2024 ñu daal di wax euh, ba tey ci euh, président Macky Sall ci la Le Soleil moom it fësal xatam bu njëkk wax ni le président sur la présidentielle euh, de dimanche prochain appel au calme à la sérénité ba tey moom lañ doon wax sànq kii di président Macky Sall moom élection yi nga xam ne nag moom naru cee bokk sax waaye amee nga wax ni dafa bëgg mu daal di jàll ci jàmm ak salaam comme ni ñu ko daan defee fi nga xam ni moom mooy ci réewum Sénégal loolu la ley daal di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi tribune yéenekaay moom nag euh, daal di xëy ba tey ci président Macky Sall euh, mi nga xam ni euh, daal di na yëkkati ay kàddu wax ni je n'ai pas d'excuse à présenter puisque je n'ai pas commis de faute comme ni ma ko waxee sànq nak événement yi nga xam ne nag xew na fii ci Sénégal diggante deux mille 2021 ak vingt 2024 ñeel ay manifestations ak yi mel kii di président Macky Sall jàpp na ni takkewu ci benn yoon moom jàpp na ni amul lenn xam ni war ko baalu àq ñi nga xam ni ñoom ñooy sénégalais yi loolu nag di ay kàddu yu tukkee ci njiitu réewu Sénégal di président Macky l'observateur ci la ñuy daal di jàll moom nag xëtam bu njëkk tey mi ngi ko teg ci ville visitée quand euh, période de campagne électorale ces zones oubliées par les candidats ils nous prennent pour mu mel ni nag am na zone yoo xam ne ay ruq yoo xam ne ci Sénégal bu campagne amee képp la fa ñi nga xam ni politiciens yi di dem mu mel ni nag ñooñu le dañoo jàpp ni ñii di politiciens yi dañ leen di utiliser maanaam bu bu élection amee donc lañ leen la ñuy soxla li nga xam ne moom mooy euh, seen ay wax ak ñoom wala di fa dem waaye nag bu paasee kenn dootul leen gisati loolu nag la ñu daal di xamle ci l'observateur Walf Quotidien moom ñëw ci programme des candidats quel nouveau souffle pour l'industrie moom nag ci wàllum industrie la daal di xëy Euh, di laajte nag euh, ana lan la euh, candidat yile daal di prévoir pour secteur bi di secteur industrie fii ci Sénégal le quotidien yéen moom ñëw ci dernières heures de campagne temps de ralliement des libéraux et Rose Wardini renforce Amadou Ba Cheikh Tidiane Dièye se range derrière Diomaye 73 et partis déboutent debout derrière Khalifa Sall comme ni ma ko waxee sànq nag mu mel ni ñi ñi ngi def euh, ay alliance ñële di ànd ak ñële ñii di kiite fii di dem fële mu mel ni nag jamono ji c'est l'heure des alliances l'heure des des des retrouvailles mu mel ni nag fi mu ne ñëpp dañuy bëgg a booloo ku ci nekk nag am le maximum de chance comme ni ma ko waxee ngir gagner lii di élection présidentielle enquête yéenekaay euh, moom naka daal di ñëw ci programme emploi des jeunes les candidats euh, face au mu mel ni nag jamono ji mooy emploi des jeunes di xëyu ndaw ñi bokk na ci lu ëpp importance ci fi nga xam ne moom mooy réewum Sénégal ñu ci xaar bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi nga xam ne ñoom ñooy dem élection présidentielle ci yu euh, bi ñu war a amal le 24 mars di dimanche mu mel ne nag du doon lu yomb ngir saafara li nga xam ni moom mooy problème yi nga xam ni am na ci xëyu ndaw ñi ñu daal di wax nag ci tàggat yaram stade yenekaay daal di xëy tey ci la tanière pour retrouver le sourire Gana Kouyaté Boulaye Bamba et mu mel ni nag jamono ji seen club yi euh, dañu fa xaw a am ay jafe-jafe waaye nag bu ñu yegsee euh, fi nga xam ne moom mooy équipe nationale dinañ amaat beneen souffle loolu le stade yenekaay daal di xëy xamle ci xëtam gu njëkk ñu daal di ñëwaat nag ci euh, ba tey journal l'évidence mi mi mi amal ci beneenu xëtam caravane benn Bokk Yaakaar a Mbour Cheikh Issa Sall déroule le tapis rouge Amadou Ba mu mel ni nag Amadou Ba comme ni ñu ko waxee euh, keroog mi ngi wër fi nga xam ni moom mooy Sénégal ngir amal li nga xam ni moom mooy campagne électoral mu demoon nag ca diwaanu Mbour fekki ki nga xam ni moom mooy maire ba di Cheikh Issa Sall beneenu xëtu l'évidence ñi ngi ci gis a accueil du candidat Benno Bokk Yaakaar ba tey Thiès euh, sigi jot na au dessus euh, de la euh, mele mu de la mêlée mu mel ni nag comme niñ leen ko waxee nag Amadou Ba mi ngi wër fi nga xam ni moom mooy gox ak goxaat yi nekk Sénégal ngir amal lii di campagne